yo salaamaaleykum rahmatullah nuyu naa ñëpp ku nekk sa tur sa sant ma nuyu bu baax a baax a baax na dellu si naa tey with different style ah, man maa promise on ne dinaa def ay tooga sometimes you know but tey moom Mm, dañ ñëw rek pour defar mun naa ne local afra so su ma ne local afra doesn't mean ne like comme yu mbedda yooyu noonu tamit na afra bi ma bëgg defar nii eh, eh, first of all maa ngi ñaanal eh, suma first boss ku ñoo waa Fodé Bajinka ñeneen ñi xamee ko si chicken fo Bakaw Ah, di ko ñaanal yenn suuf si kawam moom mooy first person koo xam ne time bu demaguma hotel school sax you know bu ma gisee moo toogee liggéey nañ monument you know I was a DJ so waaye nu ma gisee muy liggéey affaire am neex ma so noonu laa def ba am interest si affaire yi tooga you so bu ma ko buggee def tegorsiden baat mu ne ma ne kaay nga start so moom daf daan defal afra ñu bari xam nañ ko bakaw ak soranden bi di ko waa cikin fo waaye eh, uyu na borom suñ borom di ko ñaanal rek yàlla xaaral ko si jannatul firdaus also first of all nag afra laa bëgg a defar aba local afra so waaye afra bi nag eh, am na jàng dama ko jàng si foo While Mantan and Amnesty Yuma Yoka, because as a product, always Dangawara, you know, Dangawara like arts, artists. Proga is just like arts. So Lunya like, about Paverek, Dangawara said that Glees Moko living in na work. So no lad, you know, the Moko, whatever they were. First of all, before matter anything, Tamara has small hobby. Very important. Very important from here the man has what before man learn anything because learners is not me be free you know so first of all to يعني يسكون بديل بحس ما الله غير هنا So okay. اوكي آه دمارة اسم الله بيه waye komlumo o here dama ora am tawal bunda so fele lanne ka because aw ma fuma ko def sma yam bayrayta moro am eprom eprom mo ne ka to wakkati ɗum yo def sen fi foof la ko wona han so first of all uh, dogna suma ganar bi mo ne ka ni no ganar bi dogna ko be pare mo ne ka ni defama ma fa dara na ya su aba aba yi la sohla bi kani la bari wut na because ma kitsi they have to eat so moo nak nag waaye ni ku nekk ak noo buggee ya so soxla naa mustard ya ni am nañ ko lii xorom la ok am um, uh, lii mix la it's like comme uh, uh, naka laa ko waaye sa comme suñ ne suñ saf-safal yi ajaaye yooyu noonu ah lii limon la vitamine Uh, nu nga ko waxee time comme apps apps la rek waaye tamit soo ko fa deful tamit sonalut la you know am na yoo xam ne sa man you know bi pobar la bi tamit yeneen yooyu la bi laaj ok na wala bàyyi sax comme by right dama dee def ay ginger you know uh, pobar uh, how to call it laaj buñ wol ba pare bu laat doen loolu laa de use normal Ya, amma tey comme loo xam ne la rek lu simple laa bëgg a def waaye bii soo ko defar mun nga koo def. So first of all lu ma war a def raxas naa suma loxo bi damaa ñëw fii waaye nag man du dama dee just estimate lii xorom la waaye ku ko def nag make sure nga bàyyi sa xel man nag dama dama def rek because comme the ones <laughs> you experience, you know, by uh, maximum comme nañ ko calculer euh, two tablespoon xorom ya so bi power la na power bi power la bi power la bo dajal nga ko sax ok li power la ni pobar tamit mun naa just one tablespoon yeah ok lii laaj la laaj bu mooka comme nu ma ko waxee la normal eh, laaj bu ñu wol ba pare laa war a use waaye laaj bu mooka laa use yeah ok so nga ñëw suma lifi ah, nii half si nag eh, si marine bi la war a dem not ganaar bi si boppam waaye man dama like suma def everything dama dee bëgga mu ah, extra so motion ca nekk dama ya moom aroma bi loolu lañ si gën a soxla dafa flavor ya dama fa def nii tuuti ya vitamin di ya comme no ma ko waxee rek ni ku nekk boo am kër rek nga use ya ok man Ras gonna be definitely I prefer Ras Napo. Why still I will need just small fruit direct because the man use mustard uh, how to call it vinegar. Yeah. Okay. Uh, a lot of vinegar, you see.

constat la dinaa fa def tuuti rek because dama dinaa defar loo xam ne comme dina am mustard yaa ok so yii laa lifin jimbo ak all things yi yëpp maa ngi la lifin waaye mun naa faa def jimbo pour mu jox ko moo flavor waaye lu ma bëgg a defar comme euh, marine bu ma bëgg defar foofu foofu laa gën a concentrate parce que foofu moo gën a am solo so moo tax nag lii rek laay def rek Now this is more vinaigrette. Ah. Model for vinaigrette, what do you think? Okay. Veggie. Model some bakku. Mix ko. Ashwana hemin gaje bloho kwa iman every time madi uh, given Mwen wak haji. Ya, si mwen wak hamon wak mwen wak. Mwen wak haji. Right now. Mwen wak haji. So, soude. Euh, sakir, mwen e wak oven. Oven mwen wak foun wak SDFE. Soude, amon wak hotanmen. Boun sonan sa bo. Foun nou anything. Lakar. So, ame oven pou mwen gav. Diva kosi oven be. you know pour mu gaaw soo amul oven nag lakka ko yeah ok euh, léegi suma gannaaw bi def naa ko si oven bi right now oven bi mu ngi on léegi dama jël lii rek ñu euh, ngi euh. okay loolu pare na si loolu legi damaa ñëw léegi damaa suma management rek clean bowl bi comme ni ma ko la léegi bii laa dama ko def fii nii mustard terus. Eh, Utenrikk, om når herman, kommer her, estimate. So, like, man, suma organisa di mosantu mosantu ni, because lu nekka rek, dama dee use suma boppa from experience we count as, si, maanaam nit ku nekka mun set, yeah? so def naa suma mostard right now, uh, dama ñëw yii si si marine ya disengke oke lagi power lah ada semua power vitamin pengurus asal bubar di kos minyak kali ya ada semua large ya lagi sohna nanti li ya, so amul so amé sa yeneen ingredient like aja ye lifin yooyu noonu soo neexee nga def ko waaye not aja boo xam naa bi ya def naa ko fa ok damaa jël one jimbo because naa fa def xoronta lii tamit dafa mel ni jimbo naa fa def naa jël suma jimbo waaye du def yëpp comme nu ma ko waxee man dama dee estimate Okay, so najal horam because horam bi eh, lu moo joxe ak yeneen yi du benn yow ñëpp xorom la waaye bu nekk am na sa waala si tooga so nañ bàyyi xel loolu torop ok so lii daf dee sonal ñu ne da ngay gis ku tooga ba pare man su ma lekkee dama dee xam lii daf xorom bi moo manqué uda jimbo bi moo manqué so lii nañ ko bàyyi xel torop so dina fa def tuuti xorom nii بنفعة اللي هي أفرعي قلنا حرام يا شولي ما دفع سما لي توتي ما دفع سما vinaigrette توتي okay léegi dama mix dama mix nii dangaa dégg ñi lu gëna important c' est ingrédients ay bagage yu faa dem su mutee rek is ok waaye tamit sa marine bi ak si afra wër ta tig torop di ko su tigee torop tamit su soo ko defee si ko afra bi nii rek dafa si ko la moo em te loolu waral dafa war a dugg afra bi so léegi lu ma def rek fu ginnaar bi jógee la nii suma tuuti ndox rek def ko fi nii waaye gis ma jaxase ko nii the stuff. waaye man soxlawu ma loolu right now because after the su na naa soxla tuuti diwlin so more than right now soxlaa nga ma diwlin